his population are all be happy today. And if you are aligned, every time, every night, every match you are prominent to the development of the company. Thank you very much. I mean, the waxoon ni la léegi naa you ci not ah ngeen man kan la nuy jox kàddu gi ki nga xamante ni bi ko yàlla defalee teraanga bàyyiw ko ndakaaru bi ko yàlla defalee teraanga fii mu fekkoon baax la ñëw sampat ko fi ceesay kajoor di dëkku lat joor suuf si du suufas joor lat joor taaloo maa joor ñu koy bàcce kor joor joor ku amul ko fi dëkk bëgg jàppale tey suñu jigéen ñi suñu ndaw yi pour la rentrée de classes tey bu ñu jëlee tey juróomi junni kaye ak ñaari junni bic di ko joxe lan pour lan pour jàppale leen si wàllu scolaire bi et yàlla def tamit ni boo tamit lancé tamit benn réseau bu xam ne réseau des femmes bu mouvement And Soxla Sénégal yaakaar naa tey képp ku wax. ànd Soxali Sénégal lu mu ko xamee mooy si jàmm la ko xamee ak si wàllu développement et politique la ko xamee. ñun ay doomu Cees nañu dañu gëm suñu bopp gëm suñu askan sànq sama chargé de kom wax na ko ñun ñun ñun ñoo dem lijjanti lii ñii ñoo gis action yi xam ne ni ñu koy def biir Cees affaire bi dañ ko bëggoon def Dakar ma ne man Cees moomu ñor. lu mu am Thiès laa koy defee donc wala lu mu jox di session bi jour sujet rek ngeen ñëw fekk sama Thiès liggéey nañu xam xamuñu tappale dañu xam ne le mouvement bi ñu yor tey yàlla defoon na tey daaw fii nañu nekkoon tey tey li ñu nekkoon tey tollu ñu lii tey yaakaar naa te mikaay bi fees na dell di remercier sama jeunesse sa taxawaay gis tax rafet na macha allah depuis démb ba léegi fi ngeen fanaan mun naa wax di remercier aussi sama voyante femme yo xamné sa saa yu ma leen woowee ñu ngi présent yo wax xam depuis 16h ba légui tay comme noonu la ko xamee tey programme yi bari nañu et puis aussi yalla ak dogalam ñun bo xolé lu mot presque ñaari semaine mu ngi ni organisation bi ngay teural li ñu bëggon moy def ko auditorium te yalla tay mo atelier xam nañu tey mbooloo bi xam ne tey fi nekk tey xëju auditorium xëju fa seen taxawaay rafet na. Euh, li may faral di wax rek tey jigéen ñoo aaye fii ak fin de mois incha allah rabi jeunesse moo aaye démb bi may ñëw rek jox nañ ma lu moo 500 bourse bu xam ne ne ma dama joxal ma ko si jeunesse bi. teg naa ko si loxo le président des jeunes dañu bëgg a bu si yàlla defee jàmm mois de novembre di def lancement yi xale yi dem jàngi. comme noonu nga xamee mouvement de son Sénégal c' est un mouvement politique mais un mouvement développement et social. maa ngi sant ñu fi teew ñëpp. seen taxawaay rafet na tey leen fi ngeen téye rek incha allah foofu la jërëjëf merci.